nekk téer ñu gën ma xam ci mag solution couture waaw ma penda mooy map sa solution tailleur bu si mag bi bi si Scat Urbam ak Cité Khadim yaa leen di ñawal Chalter yaa leen di ñawal xoolal map sa solution am mbirum tailleur maa ngi si dugg 2002 vers 2002 yooyu waaw dama arrêté jàng rek dugg si waaw bi ma si duggee moom début bi metti woon na trop waaw parce que tamit xam nga rek apprenti bu njëkk waaw mais lépp rek lépp rek loo gën di dox rek boo demee ba mokk rek ci nga doo xam lépp dëgg la waaw tey jii ñu ngi sant yàlla bu baax dem nañ bu yor suñu yëfu bopp nit ñu wóoluñu duñ seet si saa su nekk ma penda neexuleena ma penda nooy tontoo say eh, noon ee nooy say noon xanaa ñëw bu rafet jaar naa Aya Couture Aya Couture moom bàyyi naa sama empreinte man la njëkk am daal si téer deux cent dix waaw ma jaar fa nag ñawal leen lu nice waaw ñu am ay relation yu nice nga xam rek ànd boo gis day jeex mais avant boobu nekkoon naa Evenoo Couture waaw Evenoo Couture moom boobu moom ndaw laa woon daanaka dama beru rek commencé foofu liggéey di kii ndànk-ndànk dafa liggéey daamine daamine laa doon defal en même temps mais teer simple laa dama yor ñaari métier dama jàng daamine jàng simple waaw après ma jaar ci atelier yu bari yo xam mënu ko mënuma ko lim bima joggé événement moom def naa cinq atelier ma jaar aya mo joggé aya ma jaar tamit ay bana ben atelier bana ay bana côté ñoon fi Sacré Cœur apa na sila ubé sila ubé sama atelier ma benda ngay tontoo say non ma benda sama non fi xol bi di bon du ko faj waa ju baax nii la war a mel. liggéey bi moom parfois nga dajeeg client boo xamante ne si moom du comprendre waaw comme ay feet nii nii sax lay gën a méttee am na ñoo xamante ne si dañuy nekk say client yoo xam dañuy yàgg ak ñoom mais dañuy yéex a indi ay ñaw boo leen waxee tey jii danga nga fees. duna sax fii waaw dañ naan la non non feesoo mënoo fees mais ñun ngay ñawal expliquer wax la ay yo xamantene ne sax après da ngay mujjé baba ba son mais xam do ko mën quoi té ñom duñu comprendre ah mais ko moom su solution xoolal tailleur bo gis amné directeur waye tailleur yi si réew mi ya sen directeur. waaw corona bi mom bi mu yegsee moom def naa du ñaw kese secteur yëpp la laaloon mais nag début bi nii metti woon na parce que loo xam ne li li olof naan loolu bett rek mën la waaw parce que moom début bi nii moom wax dëgg taroon na trop te nit ñi comprendre duñ ko woon di jékki-jékki rek di kii di soox ndànk-ndànk après après lañu ut système sax ñaw yi masque yi commencé machine nag bu mu déclenché nag si liñ si liggéey lu bëri affaire yi xaw a déclenché en même temps feebar bi nag nit ñi di ko comprendre à zéro bu nit ñi parce que nit ñi toog seen kër moo tax te nit ñi buñ toogee seen kër moom kenn du ñëwal mais daal ça va ñun moom wax dëgg yàlla moom sentiruñu woon métti bi quoi corona bi début bi moo xawoon métti rek bi mu defee un mois noonu la xawoon tar mais après gérer nañ ko su solution. artistes ñu ci bëri moom daanaka am na ñoom ay ay waaw waaw même ku ci mel ni kii Laysa doon naa ko ñëwal Laysa mooy ki defaroon futuri ak Youssou waaw daan naa ko solol ak Marema euh, Marem Marem Fall Marema musique ak femme d'affaires ഞാൻ amin ay relation yu nice ak animateur yi comme ku mel ne Padros Padros Mbaye waaw ay DJ Boobs ak Fatou fatuare Fatou Waré moom moo ko Boobs ñoo def émission waaw bëri na daal waaw Assane Ndiaye Assane Ndiaye woykat tamit mhm. tailleur boo gis am na directeur waaye tailleur yi si réew mi yaay seen directeur ku bañ ku nangu kat yaay seen directeur waaw waaw tabaski bi moom créé nañu ay modèles yu nice waaw 217 bi ren moom yu simple rek lañ lañ ci créé ay motifs yu simple coupe simple bi tamit ñu ngi ciy génnee yu rafet waaw ay coupe yu yoo xam ne jot na dem sax waaw loxo bi tamit gars Animal Dragon ah, Belum masuk eh, apa ada Buktuk Evaz, misalnya seperti ganti. Nyom dakunya sih, ini daku bekal Maaf serius sama Rafayat. Kaga mas, ay gabi kunek. Seperti lah kok. ಆ್ಯಲ್ ನೈನ್ చూసుకోవటం అది అయ్యింది నువ్వు కాదు మాకు కుక్ శాంపుల్ నరక్ శాంపుల్ నరక్ మా అవసరాన్ని కాదు మాకు లోహగానే కనీక్ The version. lakkee yàpp gis nga mooy ko gars yi ñawlu daal ba ñawlu ñu lakkee yàpp waaw ah. ah. concours dafa am kenn du bëgg ku la kenn du foofu moom guerre la eh, waaw ñoom dañ koy am ko seen benn mbokk bu koy jël immigré yi am na ñu ñëw sax am na ñoo xamante ne lu nañ mais am na ñoo xamante ne moom problème mu kii lañ am lu leen lu yóbbu seen ñaw waaw comme ay Angleterre moom affaire GP dafa xaw a jafe. xoolal tailleur boo gis am na directeur waaye tailleur yi si réew mi yaay seen directeur. du mel ni maa ngi nekk fii di ñëw sama solution bi ma commencé liggéey bi ma euh, matagul deux deux mois mais macha allah moom moom amul benn problème donc baax na macha allah na trop. Euh, je me nomme Aïchetou Traoré. Je suis mauritanienne. Euh, j'ai avec l'âge, en ce moment, je suis au Sénégal euh, et tout. Ma je l'ai choisi parce que c'est quelqu'un de, bien. lorsque je suis venue ici pour la première fois, il a, été quand même accueillant. Il a aussi honoré les rendez-vous et tout. Donc depuis lors, j'ai continué à venir ici. Et j'ai pu même entraîner ma, belle-sœur avec moi. Elle n'était pas, elle, elle pas son tailleur, mais maintenant elle, elle court avec, euh, ma belle Machallah, c'est. Ma Venda, c'est un tailleur qui m'a vraiment plu et tout. Je suis satisfaite dans, tout ce qu'il a, eu, a eu à faire pour moi, donc Alhamdulillah. je m'appelle euh, Ali Motou. Euh, je suis la belle-sœur d'Aïcha, donc euh, mon naa wax liggéey Mame Penda Map Solution euh, rafetna trop d'autant plus que j'ai vu euh, modèle yum ko defal rafetna na am tendance coupe bi tamit notre trop machallah donc ma gis liggéey bu muy def aussi donc elle m'a encouragé à venir voir Mame Penda lu muy def aussi donc li ma ñëw aussi mu ñawal ma aussi kontaan trop parce que coupe yu rafet la def et fu ma romb rek ñëpp coow ko.

ma penda sa noon noo ko war a def sa noon noo ko war a dëkk bi si nam mu di ko fii xol bi di bon te du ko faj waa ji baax nii la war a mel maa leen sant yéen ñëpp di leen gërëm waaw ah, di kontaan ci interview bi di wax ni Map's Solution kontaan bu baax waaw ah, ku ma bëgg a nag na ñëw fii HLM Grand Yoff en face côté de pharmacie Salter rond-point Grand Yoff ku ko taxaw rek bomba defee signe dinaa jël sama numéro 77 673 77 85 wala nga def 76 127 25 10. école boo gis am na directeur waaye tey si réew mi yaay si